loolu mu waxoon tey loolu mu am dëgg ndax loolu joxul dëgg ni euh, njiitu Pastef Ousmane Sonko li mu doon wax lu leer la te fu wóor la ko teg. Euh, Pam Ngagne yàlla mooy sàkk ci jamono bu ne ci yenn réew yi. Mhm. indi benn musiba walla benn malaaka benn seytaane boo xam dana yóbbu këf bopp nit ñi même seytaane am na ñoo xam ne moo ñu gën a gëm ni yàlla. donc nañ def attention euh, Barthélémy Dias li muy wax tegu ko fenn c'est des propos politiques. mais attends. mais may ma par contre. l'argent occulte qui provient de sources okay. par contre mm -hmm. Ousmane Sonko ku yàpp Sénégalais yi la xam nga moo la gën a xam ndax moom defe naa jàng na droit juriste la avant muy def impôt domaine ni état. les deniers publics mooy denier état du denier privé dafa am denier privé denier public xam nga sa salaire bi nga moom ak li nga béy tool ñiy jaay ñiy jaay Sonacos gerte gi sam xaalis la par contre Sonacos xaalis état bi la yore fa ba détourné woon dañ koy nga porte plainte kon agence judiciaire de l' état rek moo mën a porte plainte de l' état du Sénégal xam nga président de la république mooy chef de l' état amul droit porte plainte pour détournement de deniers publics xanaa Sonko lu mu nul nul nul lu mu ñàkk jàng-jàng xam na loolu kon moo ko tey attention kon xam na ne procès du ma sa am foofu ndax plainte bi muy déposé c'est irrecevable c'est absolument irrecevable ndax monsieur l'agent judiciaire de l'État au ministère de Finances mooy représentant de l'État du Sénégal devant la justice déglu ma foofu ma explique Sénégalais yi Sénégalais yi xam leen ni alalu nguur gi alalu état bi kenn rek moo ko mën a laaj ci plainte déposé ko muy koy wax monsieur l' agent judiciaire de l' état même président Macky Sall amul droit porter plainte kii que ce soit naan yore nga xaalis état bi Macky Sall sa mënu ko. ministre des finances mënu ko mais agent judiciaire bi bokk ci ministère de finance mais xaalis bi. yoon même même mais xaalis bi même bu fekkente ni da nga jàpp ne alalu état bi la mais ci diggante ay ñaari ñaari parti lañ ñoo xam ne dañ leen war a dédommager seen alal loolu ci diggante boobu. moom am na sañ-sañ en tant que député wala en tant que consultant ci loolu mais mu mu mu porter plainte ci loolu. c'est pas vrai loolu xam loolu ku dëkk juriste doo ko wax dañuy wax la forme et le fond en droit les condition de recevabilité droit du loin comme neex rek nga dem porter plainte de est-ce que am nga droit dëppal requête ni Modou Ndiaye ak Fatou Diop damaa bëgg seen say tas amoo ci droit ko ci ñoom ñaar kenn moom ne demande divorce. boo bindoon tey ñu ne irrecevable salaire bi nga demandé nii sama doom ak ak ak doomu diw mi sëy sama doom sa doom bu ñu sëy du yow yaay bind lettre na sëy bi tas kenn ci ñoom ñaar mooy demande kay divorce bi du dëgg ndax ñoom ñaar rek lañ ko may pour tas am nañu ay kilifa mais amuñ ci droit da nga fay waxee loolu mooy procédure procédure mooy loo xam ne doo doonoo ci dara deniers état bi les deniers publics benn privé bu ñëw Ousmane Sonko. ñëw ni day porte plainte ku ko randal bu dee dañ ko randal randal ou pas moom amu ci droit. même même ak li mu nekk député à l' assemblée nationale. ñooñu ay nulaar la ñuy wax dëgg laa ñuy wax loolu naan way député la kon yoon moo ni. way way way way way ba ngañ man man xanaa avocat la yoon moo ni droit. dama déglu avocat nga waaye itam Ousmane Sonko ku ko contre nga. pas non contre ma c'est-à-dire ku ko contre nga. kenn du la dégg nga wax. ci moom loo xam ne positif la toujours wax bi dafay def. contre ma ko ay ay doxalinam. jëfam manipulation am laay contre par ci d'ailleurs bi ci la parce que état loi boobu bind nii loi nul n'est censé ignorer la loi ma dama ne xanaa gars yi naafeq lañ parce que boo xamee ni yow amoo droit porter plainte nga jël réseaux sociaux yëpp di porter naa plainte contre diw yore naa ay preuve naa ko jox procureur te yow amoo droit porter plainte député ministre président Macky Sall mi ñu fal mi chef de l' état amul droit porter plainte ci dañu public déggoo ma ne ma ne la agent judiciaire de l' état bi Antoine Diome nekkoo te léegi Bocar Samba Thiam nekk fa maire de Ourossogui rek moo mu ne bind plainte nii contre Mamour Diallo contre diw contre diw boo xam ne état bi yaakaar na ne laal na xaalisam loolu dañ ko bind ay texte de loi la PAM ngañ. loo jàngul nag mënoo koo tari ñuy wax loolu naan député la dégg naa ay dinaar taxaw def télé bi naan wari am na droit laaj ndax député la mais yoon néew député am na droit laaj xale alal réew mi. léegi léegi xam mais yoon am na droit xam nga député lu mën. waaw assemblée nationale. Mhm. poser ay questions ni xaalis bi fuy ñu dugg laaj ko ministre kooku. mais contrôler gouvernement bi. waaw et e et les politiques publiques. le rôle de l' assemblée léegi mais du porter plainte may ma ñu boucler chapitre boobu s' il vous plaît. ñu foofu waaw pour mu gën a leer dama dégg ay wax d'abord ñu naan oui affaire comme i ko waxee ne Barthélémy na affaire bi du ma am procès. donc en droit y la forme et le fond. ndax dégg nga loolu en droit la forme c'est irrecevable ndax kii porte plainte amul droit porte plainte ndax moom du représentant de l'État ndax bu dee alal bi alal État la. mais dans le fond war na leer. mais dans le fond kenn moo ko mën a leeral muy Ousmane Sonko. ndax yéen en yéen ñii waa presse bi presse sénégalaise yëpp lay défier kan moo ci ma sa taxoon Ousmane Sonko jox ma preuve di seen déontologie boo ne leen avant de publier une information il faut aller la source maintenant bu devez protéger la source vous n'êtes pas tenu de divulguer la source. mais kan moo leen laaj ñu ko. kenn ci ñoom dañ ko ragal non attends kan moo leen laaj kenn ko laaj ba kenn mësu ko ko laaj ba jox la ko mais beneen bi. dama dégg mais loolu mais wax. dama dégg benn discours dama dégg benn discours. waaw bu doy juge bi dama ne ko yow kenn léséwul sa intérêt vos intérêts ne sont pas lésés pour nga mën a porter plainte xam nañu kuy porter plainte day fekk yow nga am ci préjudice. xam nga état bi moom xaalisam yaa ngi may dégg daf ko dénk kenn ku wax ministre du budget. am ku koy représenté bi agence judiciaire de l' état. yow nga déwé fee rek man Ndiaye man Ibrahima Diop damay porter plainte tey ji euh, Amadou Ba. Mhm. damay porter plainte tey. Abdoulaye Daouda jàll yoon mayu la loolu. mais par contre effectivement il est lésé soo Sonko est lésé. comment ah oui il est lésé ma ko. mais moo tax ma ne la comment. 94 milliards yooyu mu bëggoon ñu fay te fayuñu ko bu ñu ko fayoon am na ci 12 pour cent muy 11 milliards 280 millions en 2018 nous sommes au mois de septembre octobre 2018 mu dem ci signé Atlas ak Mercalex. ak famille moom mooy Atlas mooy Merkeles dem ci famille lébu yi dem ci famille lébu yi ne leen bu ngeen moom mën naa gën a gaaw Tayru Sarr bu ngeen ma jëlee dinaa fexe ñu fay leen. audio audio boobu la ni fay nañ ci cinquante neuf euh, millions. pour am audio bi même loolu loolu Sarr Merkeles Sarr ba loolu gëwuma ko. na da ko da ko joxe bu da ko joxe man man maa yor naa audio man man ni ma da koy génne man dama Ousmane Sonko man lu ma waxee preuve baa ci sama wet ba téye waaye am naa ko da kii da ne yàpp yéen la yàpp. xoolal waaye gis naa bukki moom weebee yoo xam ci doxin wala yam na presse bi trop ma ni il e lésé Ousmane Sonko est lésé ndax bu ñu fayee 94 milliards yi ah dina am 11 milliards 280 millions comme fay ñu ci ñaar dërëm te la doon dégg pour def élection présidentielle 2019 nous sommes au mois de septembre octobre 2018 bi muy signé Atlas ak Mercalex moom mooy Atlas mooy Mercalex ak Ba son trésorier de de Pastef ñooñu ñoo dem moom moo dem réunion si wala naa signature am bu signé moom ak ba boobu Tamsir ba xaw ma ñoom ñaa ñëw ci réunion bi ak lébu yi ñu signé la ko 12 pour cent ñoo 14 milliards yi génnee di nga am 12 pour cent muy 11 milliards 280 loolu lañ ko xañ na fayu ñu dara muy prêcher le faux pour am le pour bëgg ñu génn xaalis bi. accord léegi mais xam nga ni kii mooy naafeq. maître nee nga ci forme bi. mën nañ ko cee génne. ci il est lésé il est lésé moo tax léegi mu def appel xam naa boobu daa ci boo bëggee. maître appel de fond bi mu def nga xam ne waa ji xaalis la bëgg. maître daa ci boo bëggee après. d' accord léegi dafa am loo xam ni daf ko wax loolu aussi war a leer xanaa loolu procureur